batay mbokk yi di wéy di teewlu saabal tomm ne dafi taataane seeni xibaar ci làkk wolof xalifa sàll mi fi doonoon farab ndakaaru tey njiitu lëkkaloo eh, gu kujje gi di yewi askan wi àdduna ci njuj njaaj yi cour des comptes fésal nee na toppekat bi war naa topp képp ku luubal ci xaalisu ku wet fukk ak juróom ñent bi mi ngi ñaawlu bu baax ñàkk saytu alalu askan wi ñu nattaloom jëwriñ ji ak seeni eh, wànqaas ngir ñu xeex eh, jàngoroy corona ji moom xalifa nag xam na bu baax mbiru cour des compte ndax eh, ci lu nu eh, ci lu nu mel eh, lañu ko tuumaaloon ba ko ci kaw bokk moomeelu ndakaaru tëj ko nungu siin waaye ci jano bi mu amaloon ak sunuy naataango yu Sud Quotidien mi ngi xamle ne it amul lu muy rëccu way na rew ICA e, wi tax ñu tuumaal ko ndax jàpp ndax jàpp na ne Euh, euh, xam nañu ne yoon euh, tëddewul njaaxaanaay moo tax am na ci yenn toppekat yi mënu mënu leen a wekk laata ñu ma doon atte xam xam naa ne juróom ba juróom-ñaari at la ñu may tëcc muy lu ñu déggoo woon ci seen biir ba noppi euh, jàngat bi ci xalifa Sall am ci waynde réew Cour des comptes mooy ne amul jenn jëwriñ ju ñu dut baaraam lépp euh, la ñu xëpp euh, sàmba kopparu jëwriñ yooyee te nee na ñëpp xam nañu ne jëwriñ yi rek ñoo sañ a joxe ndigal samba koppar yi ngir ñu mën a génne xaalis kon jëwriñ yi ñoom itam Eh, ci luubal gi la bokk ci gis-gisam loolu rek eh, moo tax man Mansour fay ak Aliou Sow di ŋàññi eh, dogalu Cour des comptes ngir bëgg setal seen bopp ci ci mbiru ñenn ci kujje gi ak ak ci ak géebaanekat yi ñu ne ràpp ci nungu siin eh, xalifa mi ngi naqarlu naan li ñu mën a mandargale eh, kayuk Macky Sall mooy teg loxo gi mu teg loxo yoon ba ku ko neex mu jàpp tëj la eh, lu tegul fenn xalifa Sall dellu cin ci itam ji wetti yi nu génn rawatina yooyu jàmbur yi nee na li ko gën a yéem mooy lang gi mu bokkoon di PS nga xam ne amuñu lu dul eh, ñeent ba juróomi jàmbur loolu nag nee na ku yeewoon Ousmane Tanor Dieng ci bàmmeelam wax ko ko du ko gëm eh, li jëm ci jongante njiitu réew mi déwén eh, njiitu langu politique gii di taxaw Sénégal firndeel na ne dina bokk ci jongante bi ci atum ñaar ju nekk ñaar fukk ñeent ngir jiite Sénégal saabal tomb net